Euh, puisse se déplacer parce que tout simplement euh, c'est la paroisse classée troisième au niveau euh, de l'ordre tey kon ñoom laataa ñoo jàll ñi nga xam ne naka ñoom ñooy waa paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff ñoom ñooy yëg yéen a ngi koy gis xale yaa ngi noonu bien sûr avec beaucoup de joie mais également passe-passe bi nga xamante ne moom la ñuy yegsee des images qui se passent tout simplement de commentaires on vous laisse découvrir en attendant l'arrivée de ces paroissiens de Saint-Paul de Grand Yoff

Cette joie des paroissiens de Saint-Paul, de Grand-Yoff, ils sont chauds. C'est tout de suite la ferveur. nga ne sawaay lan du ñu xool du ñu gis. non doo xool. da ngay kubbi say bët. ah da ngay kubbi say bët. xool. xanaa da ngaa doon. doo xool. symbole rek la ñuy toog. est-ce que amul benn maintenant Immaculée des parcelles assainies. Marie Immaculée qui présente aujourd'hui le plus grand nombre de marcheurs. Mbel mi Monsieur Ngom ça va bien. Xipil xool. ñun mi baaree La représentation est très magnifique bien sûr. jàmbaar bëgg naa la waaw rek na neex na. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm bu baax a baax. yëg jamono yi nga yegg. waaw instant nii Mariama seet nañu lépp lu ñu waroon dox ñu dox yëpp neex na. woy nañ asiko nañ prière nañ lu bëri. ñëw nañ yegg si nañ si commune bi jàmm ak salaam nii. xanaa yeggali dem sangu ji préparé suñu mes vingt deux vingt heures. loo woyal Mariama. lu neex. Mariama mooy suñu yaay. ah Mariama mooy suñu yaay yaay Yeesu mooy suñu yaay jërëm mbër baay noonu. waaw mais c'est normal xam nga ñun François Gomis kenn mu war ma fi jiitu quoi. te a dox bi. waaw sax da baax. waaw waaw waaw. kan mooy Mariama. yaay ju sell ji ndey ju sell ji. kenn du moom. nañ dundee pèlerinage. waaw mbégte rek. waaw merci. yàlla ñu ma fekkee at yu bëree bëri ah. Mariama de celui qui vient d'arriver à l'instant à l'image. on soit comme qui est un champion de cette zone. mbër mu ñëw ak gars yi ñëw gunge leen Mariama qui le dans les parcelles de celui donc accompagné. Ça part la direction de la case de tout petit. Les jeunes qui sont donc des milliers arrivés ici à Poponine. La ferveur bañ maman maa ngi lay nuyu. Bonjour madame. Ça vous allez bien? Très bien. Ça va bien, merci. en direct sur la tv pour accompagner la jeunesse marcelloise. Qu'est-ce que ça vous C'est avec beaucoup de plaisir. C'est un grand honneur pour moi de participer à cette marche avec les jeunes des parcelles. Aux parcelles Assainies, nous vivons en communauté. Nous vivons en communauté. Ce sont des jeunes frères, des frères, des sœurs. Donc, euh, chaque année, j'envoie une délégation, mais cette année, avec Marie Immaculée des Parcelles, toujours. Voilà. Les images sont assez parlantes. acculé des parcelles assainies. Cette paroisse qui présente ces milliers de jeunesses arrivées ici à Popenguine toujours cette ferveur. Maanaam leen kenn du Mariama mu sellam ne Christa bi ngir Maria waaw ba mu waxee sama xel bi day jël maay gërëm yëpp nag ci ci ñu ngi leen di ñaan ngeen ngeen topp ko signé yegsi nañ ba fii na rafet depuis début bu bàyyi leen oto bi xali leen ngeen respecter les consignes. mu ne ngeen respecter les consignes. yéen rek la. nga def ndànk. on est bien arrivé. gloire à Dieu. mais waxtu mooy naka la ñuy duggee. mais bu bu zana. def leen ndànk. def leen ndànk. seen jiw dañuy nii si kanam. boobu la ngeen def man bu leen jaxasoo bu leen sëmbarloo ambiance bi di dugg côté Ngine bu ko defee ci yaay allo allo ambiance ani fa sugar wala sugar mu dem nak ko ay jëna ko lu ci dara wala bu la dara wala tandago ba wala na loko bu fa wala mu dem abẹ́lẹ̀ nínú population mi. abẹ́lẹ̀ bọ́jú alúgbìrì alúgbìrì bọ́jú ẹ̀ka tẹ́tẹ́lẹ́ bọ́jú alúgbìrì alúgbìrì alúgbìrì gbogbo. Maraton. Maraton. Maraton. demutali li nga xam ne moom mooy seetal wala ñu moteur bi nit ba yegg si na Well, well, well, well, well, well.

danañ ko mën a déggee waxoo mi paa yi. je rappelle que. Popo mi paa yegsi na. Popo mi paa yegsi na. Seul message. de magnifiques images. Je rappelle donc que cette communion avec notre sainte Vierge Marie également. avec les phénomènes. Ça, c'est les parcelles. Ah, donc Popo mi fa yegsi na semence 2040 jeunes comme je l'ai rappelé tantôt.